bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa maulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi mbokk téléspectateurs yi seetaan seen chaîne bi di Nabi TV 92 officiel ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara tey ñu ngi dellu si waat ci seen émission jàngat ci lislaam ah ñu ngi ci njeexantalu koor gi ñu fas yéene jàngat tomb yi rek benn laylatul qadr dina ci bokk ñaareel bi ci des euh, séentu weer na ci bokk ndax léeg-léeg mu jur coow ñetteel bi ci des muuru koor ñeenteel bi korité ñeenti tomb yooyu bu ko minute yi mayee ñu jéem koo tënk ci lu gàtt rek ndax euh, léegi temps bi du gudd nu wax ne laylatul qadr buur bi subhaanahu wa taala moo ko tudd ci alquran wax ñu dayo bi kon guddi gu mat a bàyyi xel la woor nañu weer wi ba yegg si fii tey war a fas yéene dundal guddi laylatul qadr ndax yonent moo nu ko sant yàlla moo ñu wax ni dayoo guddi gi toll yonent sant ñu ne nañuy dundal guddi laylatul qadr sunu boroom daf ñu wax ci alquran audu billahi min shaitan rajim bismillahi rahmani rahim ina anzalnaahu fi laylati l qadr ñun yàlla ñun ñoo wàccee alquran ci guddi laylatul qadr walla ci guddi qadr <laughs> ci laylatul qadr boog mooy guddi qadr qadr nag coow lu bare la ci boroom xam-xam yi mais li am solo ci ñun mooy du mooy ñu xam luga baat bi luga bi du xam ko mooy li am solo ci ñun waaye dajeeg bés bi mooy li am solo ci ñun wala ñu xam maanaawu baat bi kese mooy na ñii ne mooy guddi gi ni dogal mbir yi guddi gi nii dogal mbir yi ñu ne mooy laylatul qadr guddi dogal mbir yi fi fiha yufraqu kullu amrin hakim comme ni ko buur bi waxee ci kaw ñii mooy guddi gu am daraja laylatul qadr ñu ne mooy guddi gu am daraja ñi ne laylatul qadr mooy guddi gi nga xam ne day fees dell ki malaaka bu guddi gi day xat asamaan si diis ndax wàccandoog malaayika yi ci bés boobu boobule yépp baax na mais li am solo mooy ñun ñu dajeeg bés bi rek yàlla nañ dajeeg moom tey incha allahu taala euh, buur bi ne ñun ñoo wàccee alquran bi nuy jàng ci guddi laylatul qadr googu wa ma adraka ma laylatul qadr ne xamalaguma lan mooy laylatul qadr de nga ne déedéet mu ne laylatul qadri xayrum min alfi shahr laylatul qadr mii ñu ne mu ne moo gën junni weer yu laylatul qadri nekkul junni weer yu laylatul nekkul guddi gii moo ko ëpp doole tey du ñu mën a guddal ci xissa bi ci Cham'un mi nga xam ne moom moo ci am histoire bu yaatu ci jihaad ji mu taaloon quatre-vingt-trois ans quatre mois mu di ko jihaad di ko boole koor guddi gii genn guddi gii durant li kooku am yépp guddi gii moo ko ëpp doole te montant kooku ci jihaad la nekkoon booleeg di woor te moom kenn la di xeex ak peuple lu lëmm di jihaatal yàlla quatre-vingt-trois ans plus quatre mois mooy junni weer junni weer yàlla daf ko gërëm ba keroog bi ko population ba jàppee daggate ko dagg cërim yi dagg cër yi dagg ko dagg ko ba bopp dong des ci nga xam ne bu ñuy dagg bopp bi muy dee yàlla moo waxal jibril boppam ne ko laaj ko lu mu bëgg dama on ne ko bëgguma dara lu dul mu delloo ma sama kàttan gama amoon ma jëmmarloowaat ak ñii ngir samp dëgg ci ci pénc mi yàlla delloowaat ko cëram yi mu jëmmërloog ñoom ba daan leen samp dëgg ci penc mi junni weeru yàlla saxaaba yi keroog dañoo daanu jooy ci kanamu yonent bi ñee ko parce que saxaaba yi dañoo baax ñoom buñ gisee ku def lu baax dañu koy ñee waaw ñu yëg kii ngëm gi mu am ci yàlla ak li ko yàlla jaral courage bi mu am ak coono bi mu daj ba yàlla may ko ndam lu toll nii tey saxaaba yi na yonent ñun nan la ñuy def ba am lii comme yàlla lu yonent bëgg mu defal ko waaw yonent yëg loolu ci xolam yàlla ne ko jox naa la lu ko ëpp doole ne ko may naa la génn guddi xam nga sa xeet amuñu temps wu def li ñuy def wax dëgg yàlla ñun mënuñu ko fii ko fi dund quatre-vingts ans mooy yow génn nga ci dund bi quatre-vingts ans dañ lay disqualifié parce que amutoo kattan gooy def jiyaat mais kee moom quatre-vingts ans dafa mel ni jeune bu am vingt ans ci ndax ñoom dañoo mënoon a gudd fan mën a am kattan loolu la leen yàlla defaloon yàlla ne ko comme yéen da ngeen néew kàttan seeni at du gudd may naa leen benn guddi boo xam ne ku ko ci màggal guddi googu moo ëpp doole junni weer yi ngeen di yéem ci samxun mi moo indi laylatul qadr gi kon yàlla teral nanu ah, moo tax yonent daf ko fonkoon de guddi gi yonent mësu ko caaxaane ngeen baal ma de baal leen ma ci baatu caaxaane yonent du caaxaane dara waaye misaal rek laa doon joxe dama bëgg a wax ne guddi gi daf ko fonkoon daf ko fonkoon di ko fonkloo saxaaba yi taxarraw laylatul qadri waaw dee leen dàkk laylatul qadr dee leen ko wër kon am na solo ñu bàyyi ci xel buur bi nee na xayrum min alfi shahr laylatul qadri ñu naa mu ne xayrum min alfi shahr guddi googu tanazzalul malaaikatu war ruux sunu borom nee na guddi googu malaayika yi dañuy wàcc dañuy wàcc di saafa wonteeg way gëm yi di saafa wanteeg aji woor yi di leen ndokkale di leen ñaanal jàmm war ruuxu am na ñu ne war ruuxu jibril la dikru xaas baada am la am na ñu ne du jibril beneen malaayika la am na téere yu wax ne malaayika yi da danañu wàcc ba pare ne war ruuxu ak jibril am na ñu ko fire noonu am na ñu ne déedéet war ruuxu ak benn malaaka la boo xam ne am na junni bopp maanaam jëmm ji junni bopp ci nekk bare na de bopp yooyu junni bopp yi benn bopp bu nekk am na junni làmmiñ làmmiñ yooyu benn làmmiñ bu nekk ma ngay dikkar turu yàlla bu bokkul ak moroomam yool ba yépp ñu ngi ko yéene xeetu yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne ñoom kooku la def ar kon loolu lim ñuy tegtal mooy en tout cas du guddi gu ndaw guddi gu rëy la alquran daf ko prononcé nee nañ dinañ ci firndeel tolluwaayu ëllëgu jaam ñi fan bu gudd fan bu gàtt wërsëg wu yaatu wërsëg wu xat dee juddu lu nekk yéeg ak wàcceeg lépp fiha yufraqu kullu amrin hakim dëgg la yàlla dogaloon na ko ba pare waaye ci la ñuy joxe dat yi nag la nangam nangam dana xew la nangam nangam dana xew la nangam nangam dana xew ñun ñu ngi ñaan buñ ca yeggee nu yàlla may xéewal gu yaatu wir gu yaram ngëm yàlla gu wér gu dëggu nag ca yàlla jëf ju sell ju yàlla gërëm wërsëg wu yaatu njaboot gu barkeel waaw yàlla ko yàlla def defal nu ko defal ko jullit yëpp ci àddina def ci réew mi jàmm loolu ñu bàyyi ci xel ah, ñu dundal ko ci jaamu yàlla sallallahu alayhi wa sallam waxoon na soxna ne ko ku ko fekkee da ngay jàng allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni waaw ah, yàlla yow day yaay jéggalekat bi te yow ku bëgg jéggale nga maa ngi lay ñaan nga jéggal ma ah loolu yenent moo ko waxoon soxna Aysa sayyidatuna suñu sang ba ne ko dee ko wax ci guddi laylatul xadr boo ko fekkee soxna seeg ko laaj ah, guddi gu ñu toll bu ma fekkee lu ma war a def mu ne ko del wax baat yi rek waaw ah, allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni waaw ko defee julli loo mën ci jaamu yàlla nga def ko jàng alquran saraxe loo ci def lu baax dañ koy ful loolu ñu bàyyi ci xel guddi gu am doole la mbokk yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax profito ci jaamu ci yàlla jéggulu ci dimbali ci doomu aadama yi saraxe ci def ci lu baax lépp lu ñu xam yal na nu yàlla may ñu dajeek moom incha allahu taala beneen bi ci des nag mooy ku ne xam ne ne bu ñu dëgmalee korité seentu weer seentu weer ci Sénégal lu metti la te lu mënoon a yomb la léegi commission yaa ngay taweeku di yaatu rek te xam leen ne commission yi yéen wóorloowu leen nit ñi wariloowu leen nit ñi nit ñi yàlla la ñuy wooral yàlla la ñuy woril peut-être nag organisation moo tax rek ñu samp ay commission mais organisation boobu commission yaa ngi bëgg indi des désorganisation far ndax bu demee ba ñaari julli foo ko déggee rek xamal ne ñaari commission tax ñii wax nii ñii noppi fee ñee noppi fee ñii wax lii kese loolu ci li ñu war a régler la bokk ci li ñu war a régler la bokk bala nga ne naam ne fa ñu bàyyi ci xel waaw Sénégal gi waroon nañ fexe ba li ñuy tuddee commission yu bëri yi fi nekk mais nañu leen fédéré munu mënuñoo déggante lu tax bu amee ñaari commission ñetti commission yi fi nekk pour pourquoi mënuñoo def benn fédération ñoom ñëpp kenn ku nekk di may sa moroom nopp bu séentu jotee ku nekk déggante ak sa morom su ngeen amee xibaar jox leen ñu bu ñu amee xibaar jox leen mais yow seentu weer bu jotee rek nga làqatu fële teg sa ordinateur wane ne yaay woorloo sénégal yi di leen woriloo loolu ay caaxaan la te xibaar yi nu lay jox njort bu njort bu rafet dong nga ci am kenn mënu cee teg sa loxo ci kaamil njort bu rafet loolu nañ ko rafetal am na commission yu fi nekk yoo xam ne vraiment war nañu seetaat nan lañuy def ba gën a déggook Sénégalais yi loolu moo jaadu waxuma nit bàyyi principe am loolu kenn waxu ko mais dañu ne gaa yi dañ ne bu mbul bañee làmbaay nangu Boubacar ne li nu defal mbul ba mu nangu bu ñu ko defee làmbaay rek mu nangu waaye am na commission yoo xam ne effort yi ñuy def ba déggoog waa Mali déggoog Côte d'Ivoire déggoog waa Màkk bu ñu ca defoon tuuti effort déggoog waa Sénégal bare na commission boo xam ne bu heure séntu weer jotee lan la lay wax weer wi feeñ na Mali jot nañ ay xibaar weer wi feeñ na Mali jot nañ ay xibaar feeñ na Côte d'Ivoire jot nañ ay xibaar feeñ na Makka xam nga xibaar yooyu fan la ko jëlee ci commission wu Mali du ay maliens yu seentu weer de ci commission wu Mali commission wu Côte d'Ivoire commission wu Makka ci la ñuy jëlee information yooyu te mënuñ ñoo jëlee information ci commission wu Sénégal lu tax parce que nee nañu commission wu Sénégal bi baaxul daal baaxul commission wu Mali dafa gën a baaxul bu Sénégal caaxaan baaxul gis nga commission yi ne bitim réew bu Mali bu Côte d'Ivoire bu Makka ak bu feneen a ci yam benn ci tanewul bu Sénégal man waxuma bu Sénégal lépp impact am na luñ ci war a seetaat waaye bu Mali tanewu ko te am na ñuy sukkandiku ci boobu di woor te mënuñoo woor ci bii bu Côte d'Ivoire tanewu ko te am na ñuy sukkandiku ci Côte di woor te bii duñ ko laal bu Makka tanewu ko te am na ñu fay sukkandiku di woor te boo bu Sénégal ñu ne la baaxul parce que dañoo déggook état wala état bi lañuy ñuy déglu nangam sangam wax ma ban commission ci àddina bi moo déglul état commission yi ne Sénégal ñoo ëpp autonom yi ngay dégg Arabie Saoudite Mauritanie Malek Côte d'Ivoire yooyu moom état leen di diggal cent pour cent Makka bu fa weer bi feeñoon bu état bi joxul ndigal commission bi sax sañuñ ko génne Mali bu weer wi feeñee tant que état bi validé wul ne nañu ko wax commission bi sañu ko wax Côte d'Ivoire la même chose bu fa weer bi feeñoon tant que état bi déclaré wul bàyyi commission bi mu wax commission bi du génn wax ko loolu amul Sénégal Sénégal commission bi loo ko mën a waxal léegi-léegi mu wax xam ne état bi sax du ko yëg même bu dee am na yuñ ci war a defaraat léegi sam problème nag mooy lu tax ay nit mën a wóolu commission yooyu te ne du wóolu commission yi ne Sénégal loolu yaa problème loolu mooy def li la neex nañu bàyyi naxante bi ñu xam ni fii yàlla la ñuy wooral yàlla la ñuy woril nit ñi dégluwun woor a wori ci benn commission weer la ñuy déglu maa woorloo sénégalais yeeg maa woriloo sénégalais yi nag benn ndam nekku ci te risque mi ngi ci ndax njuumte bu am di nga ko gàddu ndax yaa ko jottali parce que benn waay moo ne ma rek weer bi feeñ na man su ma ko waxee su gaa yi wooree te bu amul waa joojooy gàddu bàkkaar bi déet ak yow mi ko jottali yow bala nga ko jottali war nga ci am firnde yu leer yow nag mën nga koo dégg nga wori bu jaarul yoon waa ji am na bàkkaar waaye yow mi ci woriloo sénégalais yi su xibaar bi jaarul woon yow am nga ci responsabilité yow ndax yow mën nga koo dégg gëm ko nga wori waaye boo ci bëggee wariloo nit nag na nga ko gëstu ba mu wér in jaakum faasiqum bi naba in fa tabayyanu fa tabayyanu comme da nga war a jàllale xibaar mu war a dem ci ay nit yëgal ne am nga responsabilité bu toll ni njuumte bu ci am bu ñuy sanctionné ka la wax dañ lay sanctionné waale yowmal xiyaam waa ji du la gàddul benn bakkaar yow nag sañ ngaa dégg nga woolu waa ji nga wari su ëllëgee lu ci am ci coono waa ji gàddu ko lu ci am ci bakkaar mu gàddu ko waaye boo jëlaatee sa mbir nga yëglewaat ko yow na wari am nga responsabilité ñoom bu dee juum nañu te yàlla mën naa def yooyu yëpp du ci am waaye daal li mu munul comprendre mooy mën a nangul ña bitim réew te mënuñoo nangu li ci biir réew mi te li ca bitim réew tanewul li ci biir réew mi loolu laa ne par par loola loolu moom du dara yal nañ ci yàlla musal te musal ci bépp doomu aadama muuru koor yi nañ ko génnee muuru koor lu am solo la muuru koor day raxas aji woor muuru koor day setal aji woor muuru koor day laabal xol muuru koor day laabal xol day setal koor taas taas yi ne ci koor muuru koor da koy setal maanaam aji woor yi sib yi mu daan def ci koor gi day taasal kooram muuru koor bi muy génn day setal wooram sellal ak njabootam xud min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tusakkihim waaw tutahiruhum wa tuzakkihim wa salli alayhim inna salawataka sakanu law yàlla nee na yonentu dompal ci seen alal yi dara génneel leen ko mu nekk sarax dana leen laabal dana leen setal waaw nga ñaanal leen nag ndax sa ñaan lu baax la ci ñoom kon mbokk yi loolu ñu bàyyi ci xel kër gi nag ñëpp war a génne muuru bopp la ñuy lim bopp liir bi ci kër gi te woorul sax day génne màggat mi woorul woon wala ki feebaroon sax day génne muuru koor ñëpp a war a génne muuru koor góor ak jigéen mag ak ndaw waaye kenn ku ci nekk nag ka nga jur te yilif ko war koo dundal ci sharia yaa koy génneel ka nga xam ne waroo koo dundal ci sharia nag kooku waru la nga génneel ko peut-être mën nga koo dimbali génneel ko waaye du wareef ci yow loolu ñu bàyyi ci xel beneen bi ci des mooy ah xanaa korite korite nag bésu feet ah, la bésu feet la bésu feet la bésu feet la li ma tuddee feet nag mooy bésu lekk la bésu naan la bésu sant yàlla la du bésu mooy yàlla xumbaay yeeg cakaay yeeg soirée yeeg ñooñu dañoo caricaturer l'islam lislaam li mu bëgg mooy nañu fexe ba bésu korite na tudd yàlla bari na jaamu yàlla gi tàkkar naa si na nit ñi lekk nañu naan nag nañu lekk nañu naan nañu sañse loolu loolu yonent moo ñu ko may nee na sañse leen sangu leen ba set wattu leen dagg seeni we sañse leen yére yu rafet bu ngeen ko amee lekk leen ba suur naan leen ba màndi waaye tudd leen yàlla tudd leen yàlla waaye dem soirée di fecc ka ndagar wale loolu ku ko def yow caricature nga l'islam parce que dugal nga ci bisu feet bi lu ci bokkul woon te ñu bëri ñu ngi préparé soirée yi di tëgg di fecc di rëjjëx rëjjëx yoo xam ne kenn mun la ko wax loolu bàkkaar la bàyyi leen ko nit munul woor weeru yàlla dem ba benn bés bi ñëw mu ñëw yàq lépp ci mooy yàlla yu ñàkk fayda yàlla ñu yàlla suturaal yàlla defal ñu tawfiq ak taysiir moo tax dinañu profité sax ñu jaajëfal waa Yaafiné Production incha allah Yaafiné Production lendemain Korité moom dinañ ci def euh, jataay bu am solo ca Malika incha allahu taala dinañ ko séq ak mbokki tàggkatu yeneen yëpp mbokk woykatu arab yëpp ñu def fa saan soo xam ne dana dem ba guddi gi sori incha allahu taala ngir rek bañ a bàyyi bés bi caaxaankat yi jël ko def ko caaxaanukaay waaw ñu jëmmal ci yunti yàlla muhammad incha allah woykat yi ñëw tagg yunti yàlla muhammad bu ñu paree danañ fa traité benn thème boo xam ne ñu ngi ko thème bi thème bi mi ngi dellu ci civisme civisme incha allah ñun ñoo ko war a traité kon yéen ñëpp ñu ngi leen ciy woo yéen tamit incha allahu taala lendemain Korité Malika cité Sonatel ci terrain euh, football bi ci wetu hôpital bi Yafine Production dina fa def benn soirée bu am solo boo xam ne soirée religieuse lay doon ñu tagg yonent bi waxtaane civisme euh, ñëpp delluwaat seen i kër incha allahu taala yal nañu yàlla suturaal kon mbokk yi mel ni na li nu amoon ci ay waxtu jeex na koor gi jeex na waaye koor moom jeexul maanaam na cër yi di woor comme ñu ko doon waxee bii passé yàlla ñu yàlla suturaal jaajëfal Mor Diallo mu nekkoon ci technique bi jox leen dig dajee semaine bi di ñëw incha allah salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.